Vraiment, merci au président de la République, merci aux autorités sportives du Sénégal, merci à toutes les, les jeunes qui ont euh, répondu à l'invitation du Sénégal et merci à ce magnifique public qui continue d'être en communion avec euh, le, le, le monde du football, avec la famille du football et tout ça s'inscrit toujours dans la célébration de notre titre de champion d'Afrique. Ah, mais les Sénégalais vous attendaient sur la pelouse. Ah non, non, non, non, non, non. Et je faisais un travail de coordination avec les légendes africaines parce que je travaille avec eux un peu partout dans le monde. C'est vrai que par moment, il arrivait que je joue avec eux. Mais aujourd'hui, on avait assez de joueurs J'ai fait du coaching et coaching parce qu'on a pu égaliser après le but euh, euh, dominateur du Sénégal. vous avez traversé, partout dans le monde. Vous êtes allé dans pratiquement euh, stade. aujourd'hui est un des plus beaux stades du monde. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit, Samuel Eto'o, Drogba sur la pelouse avant le coup d'envoi? M'ont on se croirait en Europe. Franchement, magnifique. Pour la première fois en Afrique, on a réfléchi et construit. un stade exclusivement dédié au football et c'est ce magnifique bijou. waaw li ma bëgg wax ne bés tey bi neex na rëy na ndax euh, réew mi ñëpp wuyu si nañu suñu njiitu réew ñu koy gërëm di ko sant ci eh, eh, eh, stade bi mu tabaxal jeunesse su Sénégal ñuy gërëm suñu autorité sportive yi fédération ministère ak ñi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ci seen loxo di di féliciter yeneen njiitu euh, yeneen réew yi nga xam ne fekke nañ bés bi bés bi lañ koy boole ci. suñu histoire léegi am nañu 6 février bés bu ñu jëlee Coupe d'Afrique waaye am nañ léegi tamit 22 février bés bu ñu ubbee suñu saat légende yi ñëw nañu sénégalais yeeg africains yi football nañ match bu rafet te ñëpp kontaan nañu macha allah. waaw Didier Drogba ak Eto'o euh, avant match bi commencé bu ñu taxawee di échauffé wu dañ ma ne Aliou dëgg-dëgg war ngeen kontaan ci seen njiitu réew ak seen waa ak ñi def gérer football bi fii ndaxte lii ñu ngi foog ne Europe lañ nekk ndax stade nu mu rafetee lii c'est la première fois ñu gis stade boo xam ne. football kese lañ ko defee te ñoom kontaan nañ si réew mi yëpp kontaan nañ si jërë ngeen